wax bi dimension boo xam ne foog ñun ñu aligné ci ak yow ni nga ko indee mm. pour nit xam lan mooy événement ak lan moo ko ci war mm. danu ni nit ku nekk bu événement amul ak bu amee mm. dangaa war a yaru ajaa déggéen nit bu yaroo li muy wuti yàlla dina ko ko teel a may ndax exigence ya war ca yar boo ko ci matalee da koy da koy am sëñ Abdou Aziz nee na mm. liggéeyal ku yàlla gërëm dangay am ca ngërëm la mm-hmm. sëñ Tuubaa yàlla daf ko gërëm mu tànn bërëb ni fii daal mën naa fee joxe ji samay digganteeg sama borom mm-hmm. yàlla nangul ko ko mm-hmm. nanguluk yàlla moo tax nit ñi da wuti foofu mu sellal ni kat képp ku ànd ak man ci liggéey bii ma liggéey bu ëllëgee lu ma am di ko ca am waye kipku ku and ak man ci liggéey bima ma la mm. kon nga xamni mm. bu fekke ni da nga jog mm. yaakar ko mom adina ak alakhirah di jëfe li nga xamni mom la wax bo dem fofa safan waru la yu ah, waroo and ak safan nit nak bu taxok manki réeri mbir famu jëm ndax xamul sax bopam mom ndax ñak xam sa bop motax ngay jëm bu sel boba di am benen xalaat wala ngay yene lenen lu ñaaw bu fekkee nag ndabul ñàkk yar mm. loo ci dugal day xajam loo fa juy doo ko am jërëjëf ndax sëñ Tuubaa amul lu ñaaw lu mm. baax la am Xaadimal Mustafa ki am lu baax nag mm. boo ko fat boo ko dee wuti lu baax rek nga yóbbu yokk waaye boo yóbboo leneen doo yokk jërëjëf jëf que nga dellu ci ndabal nga ni ndabal xam nga booy waxee géer ah waaye dégg naa de yi dañ koo dar <laughs> eh. te xam àddina dañ koy baagowaat <laughs> ndabal manque waaw de moom laa koy laaj. <laughs> dama ko dégg. waaw dégg nga. la <laughs> euh, nga. gis ni li nu bëgg ci nit kuy dem Touba. Mm. la nu am mooy la nu bëgg mooy mu am yar. Mm. parce que foo mm. nit boole nañ ko ak juddoom toroxal. boole nañ ko ak dara jaam toroxal. boole nañ ko ak wërsëgam toroxal. waaye nit kenn mësu koo booleeg yaram toroxal. déedéet déedéet. kon yar bi nu bëgg ci yow booy dem mm. mooy d'abord nga xam yow mii fi nga jëm fan la ak lan nga fa bëgg dëgg ndax bërëb bërëbu mm. yaakaar juñ fay seppi la mm. juñ fay wàcce di fa jële barke ak yokk ki ni boo defee bu ëllëgee ñu fay la te nga gëm ni moom fay nan ko ndax li mu def moo tax mu la defal ni man boo defee fayu jërëjëf boo deful leneen lu dul lool nag li Ndiaye El Hadj loo wax mooy dëgg nit ñi daal nanu xam ni mm. boo fa wàccee mm. taxoog sell mm. ak tudd tur yàlla wala nga jàngal ko alxuraan wala li mu bind ci yonent bi lën ci wuti war nga ci mën nga caa teel a am bari na ko wuti dara amu ko na mu fa demee tax amu ko dëgg la waaye lépp nga fa waaye lépp nga fa lépp nga fa sëñ Abdoulaye Diop Bichri ñu ngi dëgmal wax naa la ko altine ba léegi ñu ngi kontaan yaa ngi ñuy gunge mm-hmm. su ma la posé benn question nag dina metti lool waaye damaa bëgg nga bàyyee ñu fi dara balaa ngay dem mm-hmm. xam naa ni tudd ko sax wala da nga ciy tànk rek. Mhm. kaasu attaay bu ndaw ndax géej la. Mhm. waaye kan ay sëñ tuuba waa bala ma laa wax sëriñ Touba mooy kan ndax xawma ko sax waaye ci li nu wax rek daaneel ci. loolu laa bëgg a tuuti. Mhm. sëriñ Abdoulaye jàmbaar ja dani yaree di ko ku ma may kaasu kafe. soo yare woon am dogu mburu moo ci boole. yaree di ko ku mu may kaasub café soo yaru woon am dogu mburu moo ca boole jox naa la si ñetti morso léegi bala noo génn waaw jërëjëf ñetti morso mooy ban waaw 3 pièces sëriñ ah? Abdou Lahad Mbacké waxoon loolu demal alaaj na ko 3 pièces te it sëriñ Touba Xaadim Rasuul mm. dafa beru mm. yàlla ber ko mm. amut naawle amut maas mu beru fële moom donc sëriñ Abdul Qadir radiyallahu anhu bu masaa di jug di jiite ji ca jomaay Touba ku ne xam na ne sëriñ Abdul Qadir moo donn lislaam moom mm. lislaam kese la woon mm. moo donn sëñ Tuubaa ci looloo am bu daa dem ci jumaa ji mm. ba dëgmal waxtu yàlla wi aljuma dootul wax ak ku yàlla bind jumaa ji rek lay xool 1243 vendredi la sëñ Abdou Khadir jiite ci jumaay Tuubaa junniy ajjuma ak ñaar téeméeri ak ñeent fukk ak ñett benn yoon la ñëpp maase ni waaxu na bi dugg ci jumaa ji am ku ko mu ni ko sëriñ Tuubaa amut moroom mu ni ko moroomantewul mu ni ko sëriñ Tuubaa bokkut mu ni ko mosu cee dugg jëmu joojee di sëñ Touba nag daf ñoo wax lan mooy ak yar ak teggin mm-hmm. ba ko yàlla beree ba no ba mu beru ba nga xam ne amut maas mm. moom dafa jàngale lépp bàyyiwul dara mm. ndax wax naa Adja Degen Soumer nii mm. adduna ba adduna jeex boo demee France fi mu ne Victor Hugo fa dàqa woy dañu ba mu deewee dañ ko indi ci panthéon bi ngir màggal ko ndax wooyam yu bari li mu dund dund na 83 ans moom Victor Hugo ma ni dundam yëpp liggéeyul cinquante kilos ci lim bind boo duggee Brésil ku ñuy wax Georges Amadou fa dàqa way hmm. dundam yëpp bind na son? sonn hmm. mu ngi dund ba léegi hmm. boo xoolee li mu bind matul 60 kilos soo duggee Argentine Jorge Luis Borges dañ koy jaamu ci mën bind bindul 25 kilos te dund na 92 ans soo wàccee Inde Jiddu Krishnamurti pour lu mu fa bind bindul 25 kilos nga ñëw fii Serigne Touba ni la. Mm. man 75 ans dong laa dund. Mm. damaa nekkoon ci sama loxoy noonu. Mm. dañ ma doon déplacé. aw ma woon tranquillité. aw ma woon havre de paix. dañ maa fitnaaloon ngir sama sopp Rasulullaay. ci sama fitna googi ma nekke woon. liggéey naa ci ton tonnes 500 ci Rasulullaay. kon ku dem Touba wéttali ko mbindum Serigne Touba doo tum ranke bay def lu dul noonu. dëgg la Serigne Baye Jaxate dani bu ñëpp dee fëx. di jëm ci teen a koy wuti goj ñëpp dee fëx. di wut di yem ci teen a wuti ndox. fëxal te daw wuti baag ak goj bu wér soog a dem kon soo demee daal di duy say ndab duyal ku la saf te doo fa jekki xuloo koy wax yu ñàkk xorom te sëñ Tuubaa wane na boppam sëñ Musaa Ka dani melooy Bàmbaa ngi ku xamul na déglu te roy roy luy jikkoom moo xam boroomam day jox aji laaj di dimbali ay dëkkaaleem du tooñ te ku tooñ mu jéggal ngir boromam day may ku ko bañ di woo ku ko foññ di neexal safoo ku ko soof ku dul kuy mooy boroomam day faj aajo ki xam lay mbóot di seexal mm. di génnig ruu ci tuskare jox boromam mm. day fekk ku ñëpp xeeboon ay cosaanam mm. mu fal ko ba ñëpp faale ko mook boromam day fekk murit bu dof bu tilim ferul baa mu fóot mu set mu tafal mboolam boromam ni melay kawam ak meloy bi dëppoo nañu du déglu lu bon du dég du may ku du du mooy boromam du daw noon du yox yoxi ngir pexim nit du sukkandikoo ci mbamb ku dul boromam lu mbir rëy rëy da koy faf dolli ak ngëm du yoqi du daw day mbir mu farak boromam du wopp ba tax mu wàññi jaamu yàlla du tiis ba tax mu war faratay boromam du dégg nodd mbaa kàbbar te téewul lu taw taw ak lu liw liw ngir boromam du tab ji ba tiim du wuute musul di maamum du gàpparu bis du wéeru julil boromam waaw du yeexal wenn waxtu te mustafay faat la koy wax raw na montar te mooy borom mm. kon yooyu jikko ko ci tënku alaaj aja dégg soo demee muy yar ak teggin mm. da nga am lu nga bëgg dëgg la sëriñ Mbay Jaxate nee na mm. amub yaree tax ñu jël nit nit far ni ko tegg ca kaw mm-hmm. ñàkkub yaree tax ñu teggee nit ca kaw di kon yaray maye lépp. dëgg la Serigne woote. Mm. yàlla ber ko. Mm. rasulilah ber ko. Mm. mag ñu baax ñëpp maase ber Serigne Touba. maam Cheikh Rafal jàngale nag yar. koo koy Babul Mouridine. buñ koy fàtte ndax lépp mooma. ma ni buñ koy fàtte ndax lépp mooma. moo joxoñ Serigne Touba. Mm. moo xàmmee kër ci guddi. Mm. moo wane Serigne Touba bi ko ñëpp umpale. Mm. moo jaay ab juddoom. nekk ci famille royale. topp Serigne Touba joxoñ ko ni ko yawa bu ñu demee ba jamono yëpp xam ne Serigne Touba bu nu fàtte Cheikh Rafa. moo xàmmee kër ci guddi. moo xàmmee kër ci guddi. ndax ba muy xàmmee Serigne Touba naa ko yawa maa topp tànk bi yàlla ba mu dugg sa kër te gisuma fu mu ko génne soo ma wanee tànk bi ma dem ca man yàlla rek la am yitte ci moom booba kenn mës ta dégg loolu mu topp Serigne Touba ni ko yawa topp Serigne Touba feeñal ko moo jàngale yar mm. rasulullah kay bu ñu delloo ci moom sallallahu alayhi wa sallam alquran mm. moo wax ni mm. yaa ayyuha allazina amanu laa tuqaddimu bayna yaday illaahi wa rasulihi wa taqullaha inna allaha samiun alim ca sootul hujuraat alquran moo ne yéen way ñi bu leen dox mukk ci benn décision jiitu rasulullah kon jàngal na nu teggit القران مونو واخني يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون بولين ييكتي سين كادو مو فيتي كاو كادو رسول الله دا ما بغ نين يارو بون توغي سي ويتام نده بيرسوناليتي لا سي لا بروميير رسول الله kon yaru kon yaroo ngoog maam Cheikh Rafa la indi yooyu personnalité ci kër sëñ Touba mm. boobu civilisation ni sëñ Touba mii mm. kenn du ko daan mm. sëñ Touba mii kenn du ko jiite sëriñ Touba mii des koy déglu sëriñ Touba kenn du ko jiitu ci décision sëriñ Touba soo toogee ci moom da ngay yaru am tegginta sellal kon sellal moo nu war kon yërëm naa ji ki nga xam ne am na xam-xam te amul yar bëri na fi ñoo xamante ne ci ni ngi leen gisee ci wàllu zaahir am nañu xam-xam suñu borom bi xëy na suturaan na leen am nañu alal te amuñu yar ki nga xamante ne ne uti nga xam-xam ba am ko te amuloo yar goo ko téyee ak dal goo ko téyee kooku yee alaaji di dëkk ma lii loo koy wax. Cheikh Abdoulaye hmm. ca kàbb ga ma dëkk. Hmm. ñëpp waaw. Hmm. Cheikhul Khadim daa bind ñaari bataaxel. jox ko Serigne Moussa Mbakke mi premier xalifaam. ni ko su ma làqoo. bii Cheikh Abdoul Ahad ko moom bii Serigne Saliou ko moom. Mm. bi Cheikh Abdoul moom yóbbu na ko Kàbb Gay. Mm. di maami Awa Gay. moom mm. soxna Asfaalum Cheikh Ibrahima. nañ ma ko téyeel. bii joxal ma ko waa Mbour ba tasat muy Serigne Saliou Mbacké. toog ba yàgg mu ne. boo yoree teraanga. ak lu baax te tedd. te yiw lool te dagan. nga gis ku yaree ku xamul boppam. ak ku yaru ku xam boppam koo ko ci sedd. ma ngi ni ñokki ni ko bàlle sédd juge nga mm. xanaa ko yaru mun ko déedéet mm. boo yoree njaboot séddaleel mm. tama aw yoon da nga koy jox ka yaree de ko ka yaru topp ci ginnaawam dina ko wacc te du ko gis ka yaru for ko tuddul ci jot yaru bàyyi bi sëriñ sii di wax loolu dal moo wax la toujours ne la soxna dëggan ab yar néew na ñaari ko am xam-xam xam nga nit ñi dañuy jaxase yu bokkul nit ku am alal nee naa alal ak l'argent bokkul. Mm. alal des koy liggéey l'argent dañ koy lijjanti. Mm. adresse ki ki ki ki ki jàng te yaruwul nag. dama ni jàngul. Mm. amul xam-xam dëggan. Serigne ma bokku ci. waa ji ne ko dégg naa loo wax def ko. mu ne ko wax tooñ na ma waaye lu ma nëmmul sama làmm duma ko jéem. xam-xam dëgg dëggan. kuñ ñi moom la. xoolal baatinam. waxuma ne nga day ko bañ. waaye la war ci xam-xam ba dina ko téye ba du rëcc. nit ñi dañuy jaxase yu bokkul. Mm. dëgg la Abdoulaye Cissé wax. Mm. ami milliard. Mm. ñu boole ko toroxal ak milliard. amul milliard. ami juddu ñu boole ñu boole toroxal nga am juddu. ñu toroxal ak sa juddu. amoo juddu wax ci gëstu ku yiw daa ma lay ne ak si luy si ak xam sa bopp. ak yar ak teggin. dañ koy moo ñaari si fu mu dem ab cër. Abdou Aziz ma fama. Euh, xam nga boo nekkee form ci plateau. donc dafay neex xam. dëgg la. parce que da ngay jaayu. deug la ah fu mu ne nii foo laa toll noonu. waaw da ngay jaayu jaayu mooy waxuma jaayu ni da ngay da ngay jaay da ngay yëngu. xamna fi ngay waxe parce que cette distribution parole. waaw moy woné ni. damay ne ci état. yaangi nek ci état waaw waaw Ila Touba la Ila Touba waaw waaw. ma bëgg la wax. Mm. ñaar rek ño xamni mm. fo len fekk ci mm. àddina seen toroxtaange day tew ku yarul foko fekk ak toroxtaangeem du ko bett.